man ma nañu taxawal benn comité de réflexion bu nga xamné da fay xalat jëm ci naka la défé mutation jóge ci CNG dem ci euh, fédération bu ko défé conclusion yoyu ñu xol naka lañu koy appliquer fi ak at wala ñaari at au plus je pense que war nañu mën muter vers une fédération parce que li nga xam ne moom mooy tax ñu mën dem ci fédération mi ngi fi te loolu CNG moo ko liggéey structuration administrative tey boo xoolee am ay district am nañu ay CDG am nañu CRG am nañu euh, euh, li nga xam ne CNG structure yoyu bu ñu leen dajalee boole ci yenen structure yi nga xamné ne euh, fa la nit ñi di joggé muy association yi mo xam écurie la wala école de lutte donc nomenclature administrative bi mi ngi fi lolu mën nañ ci sukkandiku ba taxawal li nga xam ni moom moo di fédération donc fédération mënul ñàkk mais en attendant ñuy dem ci fédération euh, il faut que CNG ñu xaw ko yaatal moo tax ma ne il faut ñu def lu nga xam ne moo di structure euh, euh, bu nga xam ne bu yaatu lay doon muy comité élargi ndax CNG ni nga xam ne noonu la nit ñi di ŋàññee doxalinam moo di ne président Alioune Sarr ak ay xaritam ak ñi mu wóolu ñoom la jël teg leen ci wetam ñu koy liggéeyal alors que am na ay structures yu nga xam ne ci làmb la ñu bokk mais amuñu sañ-sañu wax amuñu sañ-sañu def amuñu sañ-sañu dogal donc fa ñuy dogalee di fa nase di fa noccee nañu ci dugal ñooñu ñu fekk fa euh, fédé CNG bi ñuy liggéey en attendant ñuy jëm ci fédération parce que à la kuli mënul ñàkk beneen bi ci des mooy wàllu règlement il faut ñu càmbar ko loolu beneen point la ndax li indi coow li yëpp du fédéra du CNG na fi toog du bu mu fi toog de xaalis bu bari bi ñuy dagg mbër yi xaalis bu bëri bi nga xam ni moom la làmb di générer te muy dugg ci gafak ak CNG te nit ñi di laaj fu muy dugg loolu moo indi coow lu bëri li te loolu réglement moom moo ko samp donc réglement bi lu ci bëri mën nañ ko càmbar soppiwaat ko ndax tey dañu jóge ci euh, euh, structure yi nga xam ne adapté wul woon pour làmb mu am ay tere. lañ doon tere tey foog ñu dindi ko bala ñoo dugg ci fédér euh, ci ci ci ci ci arène nationale bii ñu nekk ndax bu dee biteelu fukki litre wala wala loolu euh, tey Modou loo yor ko jaar nii Balla Gaye yor ko jaar ne ku ne yëngal sotti kooko loolu day neexal làmb loolu war nañ ko kii gas beeg suul beeg taal beeg yu mel noonu ñu nga xam ne day taaral làmb moom la tubaab bi ñëw di ko gëstu yooyu dinañ ko indiwaat